Euh, tey destination Sénégal euh, ngir rek euh, vendre la destination Sénégal suñu site touristique yi tey jii dañuy dem fële ci département bu mbuur rawatina commune bu Sindia ci benn village bu ñuy wax Ten tubaab Ten tubaab naka la mel lan moo waral tour bi ak lépp dañuy dem ba mbuur ànd ci ak suñu ndaw la ñu fa toogal di Abdourahmane Diallo. jàngeen jëf ci seen seetaan télévision Futurs Médias teen tubaab mu ngi ci yoon bi nga xam ne moom moo jógee ngeexoox dem fi nga xam ne moom mooy taset ci wetu yoon bi la nekkee ñu dem seeti ki nga xam ne moom mooy Issa Diène mu wax ñu histoire teen tubaab teen bi dafay teenu cosaan parce que boo déggee turu teen tubaab bi teen boo xam ne ñu ko fee defoon temps colon ya maanaam tubaab yi ñoo ko fi gasoon mu ji di ci dimbali population yi aussi en même temps di ci approvisionné ak ndox boobu fii presque ab àll la boo xam ne presque nit kenn dëkku fi àll bu xawoon yaatu bu xawoon lëndëm ñu ñëw fii ñu xam ne c'est pas loin de Ngekoox et puis c'est pas loin de de de Thiès ñu implanté wu fii di fi ñëw di fi def ay tractation maanaam di fi jënd ay gerte di fi def ay troc lu ñu naan troc échange soit boo amee dugub nga jox ko mu jox loo marchandise mu nekk mu jóg fii gas bi nag di fi wut ndox léegi nag nit ñi bu ñuy wuti ndox parce que boobu ndox dafa jafe parce que boobu ay sayaan presque moo fi nekk bon li ñuy bëgg ci ndox duñ ko mën di am léeg-léeg sayaan yi xam nga bu yeexee taw xam nga ndox mi dafay daw finalement ñoom ñu mujj gas teen bi fii di ci jàppale population yi bu ci mën am ndox teen bi nag boo déggee tur teen tubaab maanaam tubaab yi ñoo ko gasoon moom ko ko defee nag ñoom ku bëgg wut ndox da nga naan nañ dem teenu tubaab ba moo indi turu teen tubaab matériel yi ñu gasee xam nga tubaab moom en principe suy def benn affaire daf koy daf koy daf koy étudier ñoom dañu étudier fii ba xam ni fii parce que place la woon boo xam ne daf daan taa ndox bu nawetee daf daan bëri ndox parce que boo ko xawee ni a ko bëri daf daan ndox ba léegi sax ni bu tawee dëgg-dëgg yëpp day fees ndox ñoom après ñu étudier xam ne fii place ndox la et puis bi soriwul ci la ñu creuser teen bi teen bi nag bi ñu koy gas c'était très difficile parce que booba bus yi nga xam ne moom la ñu jëloon di ko di ko monter pour mën a jot ndox bi ñu mujjee trouvé benn gaa boo xam ne benn waay boo xam ne Fissel la nekk moom mu leen ko doon defaral léegi ñu recruté woon fii ay mag ñoo xam ne am nañ doole yóbbu leen ba foofu ñu béréb bus yi ko indi ba fii. teen tubaab nag 1904 lañ ko daal di gas boobu ba léegi du ñàkk ndox. te lu wuteeg loolu am na benn aspect spirituel wala boo aspect mystique. teen la boo xam ne wax dëgg yàlla moo du maa ngi ndox depuis man ba ma xamee teen ba léegi te samay pa papa ci la ñu doon approché samay maam ak yëpp mais mosul manque ndox teen la boo xam ne ñu si bëri ñi nga xam ne am na ñoo xam ne tey borom xam-xam lañu xam nañu teen bi njariñu teen bi léeg-léeg ñu am luñ ci luñ luñ ci wax nit ñi ni teen bi boo gisee ñu ci ñëw di wut ndox léeg-léeg sax bu lay ñaanal dañ naan demal teen ba nga rootal ba fa au moins bu dee pot ndox nga indil ma boo ñëwee aussi pot ndox boobu lu ñuy jël am na lu ñu ci def ñaanal la vraiment parce que ñoo xam nañu am ay secret yoo xam ne mu ngi ci teen fii nag ñëw fi yombul yoon bi gis ngeen ko metti na lool mu doon ay mbébét ñi nga xam ni ñoom ñoo fi dëkke ndax nag ñu bëri bëgg nañ fi ñëw donte sax nit ñaa ngi fi ñëw di ko visiter waaye du lu yomb. am na ñu bëri parce que léeg-léeg ma toog ba saag bi oto ñëw ni ma bon dama dégg teen tubaab te mun nu mu demee bu defee man la waa teen la boo xam ne vraiment temps colon yi lañ ko gas fii mu ngi fi fan la nekk man leen même ay gendarme sax temps Covid bi ñu ñëw di def ay euh, ay ay ay patrouille am na ñu bëri dañ daa ñëw ko waaw mais tent boobu la ko war a tent boobu ma indi leen ba fii expliqué leen comme ni ma expliqué nii wax leen teen bi lii lii moo ko waral quoi su ko defee ñoom aussi ñu jël ci jël ci xam-xam teen bi ngeen gis ñu wooyee ko teen tubaab tax na ba tey jii nii dëkk bi tamit wuyoo pour boobu maanaam dëkk bi tamit léegi teen tubaab lay wuyoo lu ëpp ñeenti junni doomu aadama ñoo fi yeewoo merci beaucoup jërëjëf Abdourahmane euh, Diallo di euh, nuyu suñu téléspectateurs yëpp yi nekk foofu foofulee ca Tentouba nekk ca euh, commune bu Sindia département bu Mbour reportage bu am solo.